ak taskatu xibaar yi ne àndul ci doxalin gi nga xamante ne noonu la ñu nar a doxalee ci dossier lu ko dalee ci commission ad hoc ga ñu taxawal dara jaaru ca yoon Ousmane Sonko àdduna euh, ci Walf Quotidien ne euh, faw jaamarloo am euh, ci diggante Ousmane Sonko ak nguur gi Ousmane Sonko sax dànkaafu na njiit réew Macky Sall ne def ko bëgg a sànq waaye nag na xam ne ay loxom dina taq rip taqal na rip itamit Serigne Bassirou Gueye Samba Fall ak Mamadou Seck ne ñoom ñetti ñi le seen tur dugg na ci taarixu yoonu Sénégal ba faw ci anam yu jaarul ci yoon yéen kaab di ñu yeggee njiit réew Sall mi vacciné wu démb waaye na xamal na askan wi ne saay bu ñu fratalul yile vaccin dina ko maye ñeneen ba tax na Walf Quotidien ne njiit réew Macky Sall warutoon a waxee noone ci euh, xëtu Walf Quotidien le témoin lu mu seede Seydina Omar Ba assemblée nationale fala la xel yi jëm ndax des euh, des muri mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko déet ndax assemblée nationale dañ ko jëfee Sonko moom songu na njiit réew mi Macky Sall ak euh, nguuram euh, bokk na ci ne complot politique déggantaan moo am ci bile dossier ba tax na du ko nangu du nangu itamit wuy ji yoon ndax convocation beeg mbir ya mu jaar amul lenn loo xamante ne aw na ci yoon ba tax na xel xalaatul mu teg tànkam ci kanamu juge d'instruction mu ngi ci le témoin le quotidien ne jëm ci muri mbalaanu kirlaay Ousmane Sonko Ousmane Sonko moomee ma ngay ngoy ba léegi ci mbalaanu kirlaayam ne nañ nañ ko bugg a muree moo euh, jaarul jaarul yoon doxalin geek nañu sampé commission ad hoc bi sax daanaka yenuwul maana xamle na itamit ne xel xalaatul mu nangu ab convocation gu bawo ci juge d'instruction bi ñaawlu na itamit li nga xamante ne mooy complot gamu wax ne moo am ci dossier am 24 heures ne Ousmane Sonko du yox yoxi ci mbir yi ndax bëggut a bàyyi mbir yi mu jàll wax na ci xalaatam complot politique ak Macky Sall ak nam koy fexeel ngir suruxal ko gàkkal ko bok na ci tamit tilimal daram ci wàllu politiku Sénégal moom Ousmane Sonko ne wér na péng amul benn gàllankoor goo xamante ne am na ko ci wàllu wér gu yaramam ba tax na lépp lu ko mën a dal ëllëg ca fañ koy yóbbook lu ñu mun a nar ci moom nañu xam ne njiitu réew Macky Sall lu ji moom mooma Ousmane Sonko ne nguurub Macky Sall mi le dàq ñu sax ba mun a posone nit mu euh, sanku ba tax na loolee la xamle démb ci janoom ak taskatu xibaar yi euh, mangoog euh, Ousmane Sonko fippu na bokk na ci ne xel xalaatum wuy ji lañ koy toppee eh, bokk na ci ne dossier gi lañ koy saytoo moo jaar ci yoon liquider ko lañu bëgg eh, ci anam yu gaaw te loolee du ko seetaan ne njiitu réew bu jógee ngir sànq Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko xamal na ko ne su boobaa ay loxoom dina tax rip eh, bokk na ci SMS gañu ne sax moo wone yoon wi Ousmane Sonko jot na ko yeggee taskatu xibaar yi. critique ne mbirum Ousmane Sonko namu nar a jàmmarloog nguurug Macky Sall ci ndax dañ ko xañ mbalaanu kirlaay am am déet ci assemblée nationale yéen kaa bi nag taxaw na ci dossier gi coow li bari na ci ndax Ousmane dina ci dem kaso ndax bu joge kaso nday dem ca pale ba laaj la gu samp ci xetu yéen kaa bi di eh, critique tribune eh, Sonko pare na ci lépp eh, bokk na ci ne xel mu wuy ji yoon anam ya ñu sayto dossier beek lañ yëpp wute na lool ak na mbir ya Sonko ne complot moo yëkkati njiitu réew ngir bëgg ko euh, fagagal ci wàllu euh, politique réew mi réew mi yéen a kaay ne li am ba des mooy euh, convocation gañ ko nar a jox euh, war a tukkee ci juge d'instruction euh, Ousmane Sonko bu ko jëfeewul dàq ko ñu sax ba mandat d'amener maanaam ñu fab yóbbu mun na ci am wala boog ñu def ko mandat de dépôt Adji Sarr moom jot nañ ko wóolu démb wax na lu yaatu ci dossier bi diggante mag juge d'instruction ak tuuma yamu teg ci ndoddu Ousmane Sonko sur A moom Seydina Amar Ba ma nga ci assemblée nationale jox na kàddu soxna Aïda Mbodj député bi métitlu na anam ya ñu taxawalee commission ad hoc moo war a saytu dossier Ousmane Sonko gis ne commission maanaam mbalaanu kiirlaay buñ ko na a tudd euh, ñu teg ko fu wér waaye nag fu wér googee nag la gisatul ne noonee la ñu war a doxalee euh, ci mbirum mbalaanu kiirlaay euh, mu ñeel ab député plainte contre x ba nag jaxal na loolu ay dambooj ne lu tax assemblée nationale gëstuwul ba xam ana lu sooke ci dossier Ousmane Sonko mu am ku kalaame ci yoon ala xam Touba. les échos les échos Adji Sarr moom fa mu ngoyoon euh, daanaka tegu fa ak tànkam euh, tuuma ya mu tegoon ci ndoddu Ousmane Sonko tuuma yooye la bamtuwaat démb ci kanamu juge d'instruction bu huitième euh, cabinet ne am na xel mu dal ci anam yi nga xamante ne noonee la taxawee ci bile dossier waaye nag ci moom salon Sweet Beauté Ndeye Khady Ndiaye mi ñu ne bu deful ndànk lu mag mag mu ngi koy yott ci googu lépp dossier. L'Observateur Adji Sarr woto ga ko yóbbu démb ca Euh, huitième euh, ca juge d' bu huitième cabinet bokk ci mbir yi ak na mu demee Adji wax na fa la mu jot a tuumal Ousmane Sonko Ousmane Sonko moomee sax ne euh, du seetaan benn yoon njiit réew Macky ko sakkal pexe ci wàllu politique. njiit réew Macky Sall mujjee naa ñàkku démb nataalam ci biir yéene kabi ne nañu joxe exemple ngir askan wi mun a topp ci ñoom njiit réew Macky Sall moo ni waxee démb ci vaccin yi. las ne wax na xamal askan wi ne bu ñu faratalul yile vaccin dàqul sax ba fab lépp maye ko may ko ñeneen noone la ko njiitu réew Macky Sall waxee démb Moustapha Diakhaté jox naa ñaawlu eh, kàddoom yooyu le mu yëkkati moom njiitu réew mi. direct news ne attention njiitu réew Macky amoo sañ-sañ bi fab suñuy vaccin bu ko may ñeneen ndax koppar ya ñu jëndee vaccin yooyu le jógewul ci sa poos askan wi ko dajale ci seen impôt ga ñuy fay ba tax na eh, fa la réewum Sénégal jaar ba am vaccin yi kon waroo taxaw rek ne eh, ku vacciné dina fa fab vaccin yi maye ko euh, ak euh, may ko ñeneen direct news moom la xëy ñaawlu ci xëtam bu njëkk euh, suñu làmb Seydina Omar Ba ñaari mbër yi le buñ leen mun ta géewal ci Sénégal ñu yóbbu ko ca bitim réew muy Ama Baldé moo Modou Lo bu fekkee ne lamb ji du sotti ci mim réew Abdou baaxum gis ne nañu fab komba bi yóbbu ko ca Gambie bu ñu sukkandikoo ci suñu lamb tënk la woon ci xëtu yéene kaay incha allah daa dund yaatal geeg faram gi ak Omar Bun Xataab Gueye ci